mom day ku teyalon and ak serigne fallu la andon ak mom ci ak talibé gu mat sëkk andon ak mom ci lepp lu ko digal mu def ko te du ko ci lenn lu koy téré mu jëlon bakkanam nos ko ko diko deglu serigne fallu nak jaralon ko lu ne ba tax tay ji mom serigne bay mu jaral nit ñu lu ne ay guddem ak ngërëmal Cheikh Amadou Fall rek la ci doon wër ndax ba muy jógee di ñëw ndax bi muy jógee di ñëw ci Cheikh Amadou Fadil boba ci saayir xamagut seigne fallu gisuko Cheikh Amadou Fadil xamu ko ci saayir mu am pas pass bu mag joggé joyen yanu ak galam ne mi ngi séti ki ñi wax Cheikh Amadou Fadil Touba itam la koy séti bu fekkee ma nga fa mu jébbal ko boppam liggéeyal ko su fekkee nekku fa nag fu mën a nekk ci réew mi dana ko wëri ba gis ko jox ko boppam waaye ba muy jóge jóoyeen dana leen gaal gii ma yenu duma ko yenniku kenn duma ci aw duma ko teg ci suuf itam su may faatu ànd ak gaal gi faatu su ma faatu di egg Cheikh Fadil tegal ko gaal gi ak sama soxla yëpp ndax moo ma attan te sama soxla yëpp moo ko àttan kon pas-pas munta weesu loolu yi mu waaje jóge ci dëkkam boobee nee na bi ñëwee mu romb Mbàkke romb fi ñu bari dugg tuubaa di laaj Cheikh Amadou Fadil bañ tegtal ko kër gii ne ko kër ga ci gis ga mu ñëw laajte ba gis sang bu baax bi jox ko boppam daal di fay teg gaal gi ba mu jébbaloo nag wax ko wax ju rëyaat ne ko fee ma jóge kat ay jullit dañ faa bëriwut muy jóyeen ay murit itam bëreewuñ fa ma bëgg nag man nga yëkkati ma ba ñëpp gis ma man sëñ bay Seck nga def ci man murit gi ba bu ma delloo ca ñoom man leen a tàggat ci murit gi ba murit yaatu fa ba ñu ñëw di liggéeyal sëñ tubaa Cheikh Amadou Fadal daal di koy nangul lool yi te xam ne nitit it mënoo koo jariñ mënoo koo defar te liggéeyloo sëriñ Fàllu daal di koy jël yóbbu ko aali ci daaray tarbiya mu bokk ci donga yi jàmbaare lool taxaw taxawin wu rëy ci daara ji te daaray tarbiya day lu am solo foofee ca daara ja nag pas-pasam àgg na ci wax ne ni su masaan liggéey ba yàgg am na kañ kañum daan kañoo woo nga xam ne kuñ ko masaan dégg ñu xam ne sañ bay sekk wax nañ su ma yaram yi masaan tàng ba muy kañu danaan jaasaali jaas ñëpp xam ne jàmbaar ja fitti na ma nga ca waaroo su demee ba mu wóor ko ne añ amut tey ci donga yi wax nañ ni am péng lay jële ca digwee ba ci digwale mu sëppeel ko daal di dugg àll bi jaar daaru xadiim daaru karim mbéngeen yalwaan foofa ba am li muy am mu jaay ko dem joxe ko ñu toggal ko ci ceebum ñebbe bu neex mu yanu ko andil ko donga yi tarbiya wu fii xane waxuma la man pas-pas beeg li mu wax sëñ Fallou waaye joxe ñam woo mu doon def rek bu ci yemoon doy na sëkk ndax sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde ma nee na gis naa ci loxo yàlla sama borom loo nga xam ne lenn mënu ma koo may ci xeeti jaamu yàlla lu du togg joxe togg joxe képp sëñ Baye nag ñoom moom gàddu donga yi di leen yalwaani añ tamoog ñoom ñooy bokk ñooy bokk waar wi loola bokkoon ci ab liggéeyam kon loola doy na sëkk salaam salaam wax ne benn tib boo def ci biir ku moo gën tabax junni jumaa ñaata tib la sëñ Bay Sekk def kon ci biir bi ñoom du liggéey sëñ Tuubaa ànd ko ak moom di taxaw yi ñu am solo mu demaat ba ay jamono ku ñuy wax bàyyi Góor a sëy nee na ñuy bay ba yàgg fii nee na moom boobu mi ngi ci daara ji mu samp gob bi yuuxu ca kaw moom sëñ Bay daal di ne day li may ñaan mooy gépp ñax goo nga xam ne daggati naa ko na doon kuy ramm xoola pas-pas boobu gépp ñax gu ma daggati ci toolu sëñ Fàllu bii na doon kuy ramm doonu ñax gu ñu dagg noonu rek kon yooyu taxawaay ak yooyu pas-pas ñi aju ci moom war nañ ko ko sante ndax ramm nañu baree baree bari Cheikh Amadou Fadal nag nangul ko safoo ko ànd ak moom ci lu baree bari mu nekk ci noon ba am bis ku ñuy wax Baye Cheikh Ndine nee na sëñ Fallou di wër tool yi waaye nee na bi ñëwee ba agsi ci ñoom donga yi nee na donga yëpp la ñoo samp seen i gopp ñëw di nuyoo sëñ Fallou ne ci oto bi waaye nee na sëñ mbay moom sëmpul goppam ñëwul nuyoo bàyyi seex ndindi ne sëñ góor a waxal sa waa mu ñëw nuyoo nee na ma ñëw ne ko ku ñëwal nuyoo mu ne ko ku ñuy nuyu mu ne ko sëñ Fallou nee sëñ bay na ko man nuyoowu ma moom mi ngi ci li ko war man maa ngi ci li ko war li ko war mooy wër tool yi man li ma war mooy bayal ko tool yi loolu man ci laa nekk sëñ Tuubaa nag ne woon na ku ne ca la la war li nga war a war dana la wër ba gis la nga war ko te doo ko wàcc ku ne ci li la wër nag sëñ Tuubaa ni li la war a war dana la wër gis la war la te du la wàcc ñoom nag ci li la kon yooyu ay taxawaay yu am solo fi koy jeexale kon ndax waxtu wi waaye daal sant nañu bu baax di siyaar baax sëñ Mor Fall mbay mi nga xam ne gannaaw yàlla moo nu boole ak sëriñ bi kon sëñ bi noo ngi lay siyaarewaat bu baax di ñaan yàlla nag yéen ñi ànd ak moom ngeen gën koo jàppale gën koo jàppale nag waxin la jàppale sa bopp la sëriñ Fallou day daa waxoon ne te sëñ Moustapha Karim la ko waxoon magam ja samam xel dal na saa njort rafet na Cheikh Moustapha ne ko dalal sam xel mu ne ko tool sëñ bii dama cee teel a dal te duma bi yaafus te fa suma yéenee wàcc sëñ Fall ne loolu dalob xelam Cheikh Moussa ne ko lu rafet sa njort mu ne ko sama yéene ci bindee fi xatul ñaawut sëñ Bay Sekk mi ne ko teeloon dal ci tool bi la te wàccul woon ba keroog ñu ko wàccee tey yéeneem ci bindee fi xatu woon ñëwul ndax yéeneem ya mooy ginaaw ñax goo dagg fas nga yéene mu ràmm ay nit ñu waroon a dem feneen yéene ju rëy mun ta lool kon sëriñ bi siyaar bi nga def si ak sëñ aboo noo ngi la ci loolu lay ñaanal te gi nangu na dégg naa li sëñ bi wax booba maa nga ca mbedd ma di ñëw waaye ci gàttal dañoo siyaare sëriñ Mbàkke Mohamed sunu sang ba sëriñ xaadim ngi jàng ba si keroog sëñ Mbàkke lii rek la ñu wax dafa ne bépp sëriñ wala bépp taalibe wala yëpp daayira yu jël seen addiya di ziyaare ji seen sayxu bi seen sëriñ ci yoonu murit sëriñ Mbàkke nee bañ àggee suuf ba joxe seeni i addiya sëñ Mouhamed nee bakkaar bàkkaar yu ngeen fi andaale woon wadd na bàkkaar waaye andaale woon wadd na waaye nee na ka ngeen doon siyaare nee ak mayam nu mu toll ci yoon wi ci suñ borom suñ borom doo leen yéen ñi doon siyaare ba ngeen doyal bañ kon Média TV, la télévision dans les prochains jours. Des émissions, des interviews, des débats, des reportages, des éditions de journal pour vous informer. Touba Media TV, une télévision basée à Touba. sorry.